mangoog euh, yéenekaay yu bari xëyandoo tey wàllu candidature mu ñeel élection présidentielle yu 2024 euh, gi ñuy lam-lamee ci jamono ji yéenekaay bi ne tey conseil constitutionnel jàpp na ne fukki candidat ak juróom-ñeent ñoo cay dagaan baatu askan wi euh, bokk na ci kenn ci ñoom di Bassirou Diomaye Faye jotagum na li nga xamante ne fichier électoral ba bu ñu sukkandikoo ci Amadou Ba di mandataire am mu ngi ci yéenekaay bi di Walf Quotidien yeneen i mandataire jotagunu fichier électoral goo xamante ne yitewoo nañ ko gindi ci candidat yi yéenekaay bi ne doon lu metti lool ñooñee eh, di mandataire joxoñ nañu baramu tuuma direction général des élections ñu bari ci ñoom dem nañ fa waaye nag jotuñu fichier électoral bi eh, kenn ci mandataire yooyu le di mandataire u Malick Gakou xam ne yëf yi par parloog yeneen ak yeneen def ci am mu ngi ci yéen kabi di eh, source a yéen kabi di critique ne élection présidentielle dañ ko amal te Rose Wardini du ca bokk ñañu jota recalé duñ ca bokk plateforme ar suñu élection xam ne yooyu le wote war war ñu ci tendefal nañ ko amal ñetti fan ci mars mu ngi ci yéen ak yàbbi di critique 24 heures ne aar suñu élection daanaka ñetti fan ci weeru mars moo leen yitteel moo leen soxal ci jamono ji ndax élection yi kenn waru ko randal mu sori mu ngi ci yéen ak yàbbi di 24 heures yéen ak yàbbi di Le Soleil mu ngi ñuy dégtal janoom ak taskatu xibaar yi maître Aïssata Tall Sall di ñu dénk wàllub euh, yoonub Sénégal xam le ne yoon jot naa may afia lu toll ci ñetti téeméeri euh, détenu ak ñeent fukk ak ñeent ñooñu nag liberté provisoire la ñu am bàyyi négandiku am nañu des ca kaso ba ñu ngi càmbar seen dossier ña des toll nañ ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar yéen cabinet ca ña nga xam ne ñoom la takkal lam maanaam bracelet électronique ñooñee seen lim toll na ci eh, ñetti téeméer ak juróom eh, fukk ak juróom-ñett mu ngi ci yéen cabinet di Le Soleil yéen cabinet di eh, Le Quotidien xëy ñu dégtal jëruñ gi maître ay Aïssata Sall Sall wax na li tax ñu bàyyi yooyu les détenus xam le ne njiit réew Macky Sall ak nguuram dañoo bëgg jàmm am ci réew mi waaye nag loolee tekkiwul bokk na ci ne képp ku ñu euh, xool sa dossier xam le ne lañ lay toppee daanaka dara amu ca mun nañ la bàyyi nga ñibbi waaye nag bokk na ci ci jamono ci ña ñib si ne newoon ca bitim réew gàddaayoon réew réewum Sénégal nañu xam ne ba léegi yoon mu ngi leen di tënk euh, seen dossier mun nañ ko càmbar saay su ne ndax Sénégal réew mu yoon la euh, te itamit njiitu réew Macky Sall def cee woote jàmm waaye nag yëf yi waruñu cee laxas lenn lu dul politique amu ca mu ngi ci yéene kaa bi nga xamante mooy la jot a leeral ci ay dossiers yu bëree bëri moom euh, jëru ngi ñu dénk wàllu ko euh, wàllub yoon xam ne ne Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko euh, bu ñu bëggee am afia loolee des na ci wàllub yoon waaye nag li tax ñu may afia yenn ci détenu politique yi dañoo saytu seen dossier waaye nag ñibbi nañu seen kër waaye say su ne yoon mun na dogal jëmee ci ñoom mu ngi ci yéen a bi di bés bi le jour réew mi quotidien xëy ko dalal maître Aïssata Tall Sall dikkaat na leeralal nguur gi nguur geeg matuwaay mu jël ci dossier Sonko ak na eh, ki ngi di Bassirou Diomaye fay ne mun nañ leen a libéré waaye nag lépp a ngi aju ci seen dossier yoon bu ko càmbaree ba noppi am na ci ñoo xamante ne yoon jot naa càmbar seen dossier ba bàyyi leen ni ñibbi seen kër waaye nag amuñu liberté totale ñu ngi ci bàyyi négandiku eh, di leeral yoo xamante ne joru ngi jot na ko indi ci biir yéen kabiti d'évidence eh, xam le ne yoonu Sénégal ci jamono ji jàmm ko tax a jóg rawatina njiitu réew mi Macky Sall fexe ba jàmm am ci réew mi bokk na ci li tax ñu woyofal kaso yi yéen kabi di Sud Quotidien ñu bari ci ay détenus politique la ñu may afia toll nañ ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent bokk na ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo desagum ci kaso yi ñu ngi tàmbar seen i dossier ne bàyyi négandiku yi ni mel nag politique laxasu ca benn yoon jor ngi moo ko leeral mu ngi ci yéen kabi nga xamante ne mooy les éco yor-yor bi xam ne ñu bari ci ay détenus politique ne woon ca kaso Rebeuss dañ leen bunduxatal métital leen ñoom ñu bëri ña ngi cay wax yooyu la détenu politique gannaaw bu ñu génnee kaso xam le ne fa ñu tegoon seen tànk duñ ko teggi benn yoon ci projet Pastef ku demee ni Aïssatou Gueye wax na Toussaint Manga wax na ak seen a doole ndax njiitu réew Macky Sall yeesalaat na seen mandat mu ngi ci yéen a laas yéen a kaabi mandat xëy dañu dégtal lu aju ci tonni mbalit mekk jafe-jafe yi nga xamante ne moom la euh, askanu senegal di dund leneen ci xibaar mu soxal wàllu lamb ji ana lu sooke ba léegi géejawaay amul kenn ku fa mun a wutu Balla Gaye 2 ci mbër ya ne ca géejawaay euh, ci mun bëree mag euh, mun bés ci wàllu lamb